leen mbokki Thiès mbokki Kajoor ah dama ni seen rongoñ fer na waaw waaw sunuy rongoñ fer na ndaxte nag dañ doon toppandoo di ba Ndakaaru cal ngir am kër gu rafet dama la loolu jeex na fi tàkk tey ak EDM établissement Daaru Minaan dama ni la sunuy rongoñ fer na ndaxte nag lépp lu jëm ci tabax waaw tabax ah kay da samp sa kër kay ma wax la lépp luy matériel quincaillerie EDM établissement Touba Daaru Minaan Diagne et frère andil nañ la bu la am ci walu plomberie nak mo fi tok ay matériel de toute nouvelle génération Manila la électricien yi mom dañu fa sax abonné ndax li ci xéti lampe décoration dama ni duma la limal lépp lu jëm ci walum électricité EDM établissement Touba Darou Minane la ca gëna rafet la andil ko askan ah kay wa EDM Touba Darou Minane jagne frère ñi né nañu ñoo bañ duñu ak lu bax maa la ko wax de dama ni la dal bañ sa bop wessul romb e Aïe pompe suppresseur d'eau Aïe tuyau PVC original Tamalé la ñuy bàyyi wuñu dara lépp luy mat ou construction pour fa demee ñu jaay la original ba ci ay prix ce abordable seentu asamaan daal jarul buuxante waa EDM établissement Touba Darou Minan Diagne frère ñu ngi fii ci Thiès ci quartier Touba Thiès gi ci marché Moussante Wa waaw xam naa ni ñépp a ngi xaar ma joxe numéro téléphone yi l'ai 77 539 25 81 wala 33 951 11 83 roy Dal du nuroog bi établissement établissement Darou Minane ndaw dëkk bu gën a rafet ci Sénégal nihayatil wa qimati taqabbala Sidibé yaa ngi kër Sidibé Sidibé fii mooy kër Sidibé Sakura moom mooy Sidibé sëriñ la te nee na am na jinne Sidibé yaa ngi kër Sidibé Sidibé fii mooy Sakura moom mooy Sidibé sëriñ la denee na am lay la ñëwal nga seet ñu boo bëggee sa aajo fa ju di nga sangu di naan bu dee tul am na bayri buy tuuru tàll de bit wala yokk sa ngóora eh bul am looy tiit mala maay si xam naa ne kii daa wóor waaw ma ne jógal ci ay toor lu du dëgg du yàgg deux ans laa taaj man ne kii suma effet dem naa ci gaali mu esek waaw léegi dégg na beneen femme bi sax la teg bët kooku di cousine si jabaram jot na ko wax ay soxlaam mais bëggul sax coow li jóg si kaw ah. yow xanaa si boo aji saay saay la yow aji saay saay la yow xanaa si wala yow bi noo kaaw ak Abdou Fall jaas dëgg rek di kaas buñ ko jàppee dañ koy taal ndaxte waa ji dóor kaat la yow waa ji dóor kaat la moom waa ji saay saay la si di di be fii mooy kër doo jël su ma la envoyé message doo jël su ma la vocalee tamit dooma tontu lu tax lool noonu ak yow xam nga ni nga mel si man yow yaa tax sacrifice yi may def yëpp pour yow la lu ne ma def ko ngir yow bàyyi naa ñëpp ngir yow yow côté loo bëgg ma def ko suba ba ngoon jot loo bëgg gisoo maa ngi ni jeex taak futi ñuul kukk kenn xamul lu may nduroon ndax yow mooy topp sa ginnaaw di daw di daw di daw ba kañ létt ma wala nga firi ma li may dund metti na de fu ne ma toog fa di la kar ci bopp ko njëg ci anglais fu ne kar naa fa comme léegi mënatumaa ñëw sa kër Tafa nag jàppale ma. gis nga yow da neex non si te da ne pour ma létt la mbaa ma firi la. waaw madame waaw indil ma léegi benn pizza ku kan daa koy laaj waaw pizza waaw pizza léegi tout ok. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ah transitaire. naka entreprise ba. njëkk ba ñu. bàyyi ak góorgóorlu. fi mu toll nii de yaay directeur général bi na nga yokk góorgóorlu bu baax a baax a baax. non kontaan naa nag wax dëgg yàlla. la fait que ñu fal la directeur général. Mm-hmm. wax dégg nga waxal rek. dégg nga de. dégg naa kay allahu akbar. kon euh, naa naa la jàppale. jinne yi ñaata laa leen joxoon. ñaata laa leen joxoon. ñoom ko Karaca. Mm-hmm. Eh, cent mille. yo yow bobu bu ñuy teg dara mom nga amul ben la fois passé la la waxon man ak yow jeexna hé eh ma malala la ta sa bëtu yërmande yi nga xol ko ci suuf tafaana xam nga nit ku nekk la mo koy togn ta man xam nga da nga sori ci man rek mhm. lolo tax nga may diile mo koy def duma ko sax tay ok mbëggeel bu mu la togné moy bi nga démé nan dang may nopp pour luma am may yëkëti jox la doyul nga ñëw sama kër wax sama jabar lu la neex doyul man mala ba dafay man da man ci man damaa xam sëriñ bay dem ci sëriñ. yow kay eh, xool eh eh eh naanu waaw tey doo mën a laay wut ci sëriñ. eh bu ma tojal. taxal bu ma doxati sax nga may kar wala nga may woo yow doyul nga may woo du ma nga may message du ma la tontu. Tafa déedéet bul wax loolu yow tamit sama diggante ak yow. bi may dem kan nga ma boole loolu pour ñu ànd ba entreprise ba. ah Kokara Thiam. voilà Kokara Thiam moom waxu leen dàq nañ ko. moom moom bisoon ñu ah, kay parce que man moom ñoo kay. Eh, eh eh eh xam nga lan am sama xaalis sama xaalis alama. alama alama alama kenn alama. léegi nag problème bi. ah xaaral xaaral xaaral kaay dama lay expliqué dama lay expliqué. xaaral kaay bàyyi lii moon la. xam nga dama lay expliqué. Uh-huh. yéen la moo tax ngeen jubadi. lu ma ku kara ñaa la. ku kara caa ngay fen bi may dugg lu ma dégg ngay wax. say lu ñu laaj pizza. pizza man nag maay pizza yi ay la ñoom xam nga yow lii nga ma doon doon. waaye xam nga la waaye bàyyi dem bàyyi dem. mujjee nekk ci tiriyaa waay waay bu mujjee nekk tiriyaa ah dana moo tax ngeen jubal dana moo tax ngeen jubal dëgg ndëndëg sémmiñ la woon la cey neex dund naa ko lam ah seekuñu tafaye tumi nag seekuñu bayante yow tamit nag bébé wa da nga xam nga seekuñu bayante mais dëgg ndëndëg sémmiñ la woon mbëggeel nag fidèle su fidèloon du boole ñaar mom nekk kenn xam lu ma lay xamal mun ñoo bàyyante tafaye tamit nak mala ba ndank ta xolal buma message ta buma wo woo tafa déedéet bul wax lo yow tamit nak tafa nak tafa bul wax loolu benn mi di wax ak man de fa lay yam wa tafa wa man tumi man luma def yalla nak ay waaye Tapha mii nag su ma bàyyee fu ma jëm nag maa ngi nii stressé wu su ma tëddee du ma nelaw jeex tàkk su ma tubay yëpp ma ëpp. yow Tapha Tapha xaar ma Tapha yee bu fi bàyyi Tapha Tapha yee Tapha Tapha yee. sama xaalis génn xaalis. yor ma xaalis ana sama xaalis yor ma xaalis sama cent mille cent mille cent mille sama xaalis gi damaa taxaw ma xaalis may tëgg sa sama xaalis jox ma sama jox ma sama sama xaalis sama xaalis sama xaalis su ma laa yor tegal fii téléphone bi tegal fii téléphone moom laay wuyoo tegal fii téléphone sama cent mille francs bay Sangoguma TV, Sangoguma TV, Sangoguma TV, la scène qui vous ressemble et vous rassemble.